xool nañu boole xol yi ñun ñëpp nañu xam ni ñun ñëpp daal ñoo xam ne ñoo bokk sëriñ benn sëriñ la ñu am mooy sëriñ Saliou Thioune nañ ko ñaanal mu yàgg fi te ñun ñëpp ñoo àndandoo tàbbi ci màggal gi def ni Lamine Diop def sama jàmbaar ji nga xam ne mooy jàmbaaru Cheikh Béthio ànd ak gaañi indi lu mat fukki kaar ay bus barke Serigne Bamba Lamine Diop yàlla na fi yàgg te wér def na jëf joo xam ni lii la daan defal baayam Lamine Diop mii lii la daan defal baayam tey bu ko defalee Serigne kenn du na guleen waaye nag jëf na ngor de jëf na ngor jëf na lislaam a ah, kon Lamine Diop waa taw feex nga ne lan yow Serigne Saliou jaajëf Mbacke yaay ñu nar jaajëf moo waral ñu nar jaajëf Sëriñ Saliwu jaajëf Mbàkke yaayoo jaajëf yaa fi def lu jar jaajëf Fatima sant na yokku doon doy sant ko te guuna doon waaw waaw sëriñ bi aar na laa jox na la kaala kaala gi jur bi rëy su yegee rafet su wàccee rafet kaala gi jur su yegee rafet su wàccee rafet am nañu ànd ak sëriñ Saliou Thiour jur bi am defet sant na yokku waaw waaw te guuna su yeggee rafet. su su yeggee rafet. su wàccee gi cuuma su su wàccee rafet. lamin su wàccee rafet. am nañu am nañu Serigne Saliou. sant na yokku doon day sant ko ko bu ne la waaw